saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Alioune Sarr ak CNG ak mbir ya ca bees amateur bu mag bi observateur bi ñuy wax Paate Njaay moo xëy dëggal li ni mel xam ne ne làmb ji dafa am benn lobby boo xam ne li leen di déranger mooy Alioune Sarr te lobby boobee écurie ba nekk ca ginnaaw du benn écurie bu dul écurie Fass écurie Fass dafa am ay lobby yu mu àndal rien que pour Alioune jóge ci bopp CNG bi ña Paate Njaay jàpp ne ñoo formé lobby ak écurie ñoo xam ne ñu nga ca biir te kenn xamagul seeni tur rax ca dooli ne mbir rivalité la entre écurie séeréer ak écurie Fass te loolee mbir mu yàgg la du tey du démb waa Fass dañoo jàppoon ne loolee daal defet la tànn kenn ku nekk ci écurie séeréer ba noppi muy jiite CNG loolee moo waral ba ñu tabbee Alioune rivalité ya commencé depuis bi Alioune nekkee ci bopp CNG ba léegi Fass mbir moomee da di déranger jamono ji dafa gën a tee raw ndax dañoo ànd ak ñeneen ñu daal di former seen bi bëgg ko fee jële te ñi ko a jële yépp ay paaka ñaari boor lañu fu leen neex ñu tracé ba mu ñëwee ca ña formé lobby ba nag la mu xam le mooy Lac de Guiers ca bokk ñëpp xam nañ ne du faas wa waaye xaritu Boy Kayre la te ñoom ñaar ñoo nekkandoo woon ca écurie Mermoz sipsoné wu ko waaye li ma leen wax lu leer naññi la ñoom ñaar ay xarit lañ te ay partisan faas lañu mbir mi bu ñu ko xoolee jàngat ko ñaari clan la gis benn clan bi écurie Fass la beneen clan bi CNG la a faj du leen lu dul ministre général bu Fass tontu lamb ji bu ñuy wax ka ko révolutionné liggéeyaat ko tëggaat ko ba mu jaar yoon du kenn ku dul Abdoulaye Makhtar mbooleem luy initiative ci lamb ji Abdoulaye Makhtar Diop moo ko fi andi dëgg la nag ministre Paye ba muy tabb Alioune ay camarade lañu woon ay copain lañu woon bokkoon lycée moo tax mu tabb ko dénk ko CNG fekk na boobee Alioune mooy président écurie Séeréer waaye loolee taxul mu am benn noonoo diggante Fass ak Alioune Libération loolu mooy kàdduy Malick Gueye te ñun waa Fass amuñu benn problème ak Alioune waaye ku jàpp ne Fass dafa nekk ci lobby ngir xeex Alioune yaa ngi nax sa bopp bu ñu jàllee ca sos borom dóor dooraat la sunu làmb xamle mooy moom ba génn jotee génn na ci porte bu ndaw ba ba ko Ama Baldé defalee bagage tafaatin defal ko bagage guy géeg si te defal ko bagage leneen mootu génn daal xooli leneen tegale ñeenti defet ku ko aayalut moom sos moom aayal xooli bu ñu xooli jee Balla digganteem ak Boy Niang point d'interrogation lay nekk ci moom la ko waral du lenn lu dul staffam ñenn ña jàpp ne Balla Gaye warta bëre Boy Niang 2 bu yenn ci amateurs yi yenn ci promoteurs yi gisee ne Balla Gaye ak Boy Niang 2 la ba tax ñu koy dox ñenn ñi bëgg ko it ña fare ci staffu Balla Gaye am na ca ñoo xam ne bëgguñu bile combat ñoom argument ba ñuy teg mooy Balla Gaye warta bëre Boy Niang bi nga mu ba mu daanee Matar Gueye bu Lansar le 8 juin ba léegi kenn gisaatu ko ci làmb ji bu dee Issa Pouye gannaaw combat digganteem ak Rock Mbalax le 2 juin ba léegi moom it kenn gisaatugu ko waaye le journal ba xam ne mooy am na yeneen mbër yoo xam ne ñu ngi ci même situation ba léegi ku ci mel ni Auguste Bismi Ndoye super étoile Lansar Birahim Deux bu bawal mbooloo lay gaynde ba jàpp ci Edouard Dim le jox nga boole waale ci Laasana Moussa Dioum ak Kuli mbër yooyu xamuñu dañoo tekki seen gémb wala déet waaye kenn gisatu leen ci làmb ji amateurs yi nag duñu jóg ci di leen laaj ndax namu nañu leen jërë ngeen jëf mbokk yi nekkoon li gën fës ci ëttu bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg